bismillah الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين wa aawuzu bika rabbi an yaxdurun bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa wa xadimihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diin kon mbokk jullit mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu te leen siyaare di ko waxee rek ni ko jëwriñ ñànko ba waxee sànq nuyoo bi ak siyaare bi lépp dañ koy teg ci loxo yi suñu sang suñu kilifa bi nga xam ne ni ko yanko ba waxee mat na sëkk bëri na tey kuy woote woo ci mbooloo mi daja gim dajeeg sëriñ bi moo tax bëri koo xam ne it xëy na daan na ko wuyoo waaye bu ci rafetee njort xelam dal ci bu baax ne nii muy doxee dëppoon na ak ni ko sëriñ bi bëggee loolu daje giñ dajeeg sëriñ bi moo ñu ko baaxee kon dañ koy ñaanal yàlla moom sang bi Cheikh Moussa Touré yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko yéene yi mu am ci lislaam yàlla defal ko ci ba defal ko ci lu kawe njortam ci barke sangam Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru di nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne ñi ngi dégg suñu kàddu rek ci bés bu màgg bii bis bu tedd bii nga xam ne moo dëppoog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy bis bu bëri ay jàngat lool ci mbiru pas-pas ci mbiru dogu ci mbiru jaayante diggante jaam ak boromam dafa feeñ ci bis bi te mat cee jànge ñu ñaan suñu borom it yàlla nañ ko yàlla jekkuloo ndax Sëriñ Tuubaa dafa bëri ay jaar-jaar yoo xam ne boo ko seetantalee rek daf lay dolli daf lay ñaax yow itam ndax li ko war digganteem ak boromam da ko matal sëkk sëkk sëkk li ko war it digganteem ak kilifaam mu matal ko sëkk te mooy yonente aleyhi salaatu ba yàlla xëy nag baaxe ko bis bu tedd bii nga xam ne moom sëriñ bi dafa waxal boppam ne lim doon wut ci yàlla bis bii ci la ko boromam jox nga xam ne mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne sëñ Tuubaa amul lu mu mos songu wut ci ku ko wallu waaye bis bii bi ko ko yàlla baaxee sàkku na ci ndimbal sàkku na ci ku ko jàppale sàkku na ci ku ci ku ko ci santle waaye lu dul loola moo ko liggéey ba mat sëkk sëkk sëkk waaye bi mu waree fayeeku nag xéwal yi war a bari benn gi war a bari dane dikk leen nag ñu fas yéene ko ànd rek nga xam ne lim laaj képp ku ko def nee na la ma jëlee ci sama tukki ba du la ump bu yow man te waxuma sax yow man xiyaam waaye ku seetlu di nga gis ne dëkk bii ni muy doxee bis bi dara la ci ci yokk goo xam ne saa su nekk yaa ngi koy gis te saa yi rekk nag waxum sax baatin wala yow man xiyaam da nga xam ne mu ngay ñëw te yegg seegul saayir kese kese kese boo xoolee dëkk boo xam ne amul benn jeexital ci loo xam ne suñ mbokk nasaraan yi fi jaaroon ñoo ko fi bàyyi boo koy seet ci réew mi dikkal Touba waaye beneen dëkk boo dem mën ngaa gis ne kat lii ñoo ko fi def wala laa ñoo ko fi def Touba dafa teel a moom boppam lool te loolu ko xool doxinu Sëñ Touba danga koy gis ma dañ ko faral di wax li wax naan yaras mooy complexe néew na kum dalul sa ak arab bi boo ci muccee néew na mu ñàkk laa dal sa ak occidental bi bër na ñum dal lool nga xam ne da ngay wut xam-xam ba waaye nag mbatit mi nga xam ne moom la xam-xam bi làmboo te mooy ki la koy jox mooy culture am da la koy mujj jox ba da ngay jaawale xam-xam bi culture bi sax léeg-léeg waaye boo seetloo sëñ tubaa ni mu yaree xam-xam mën nga koo jëlee ci képp kuy boroom xam-xam na am njariñ rek moo tax ñu ne yoon wi boo ko seetloo dafa taxaw ci ñett mooy ilmu naafix amalu saalix ak al ëdëbul mardiyu yii ku ko làmboo mën nañ ne ak taalibe mat na sëkk sëkk te dina jariñu xam-xam bu am njariñ te jàngal nañu ci Masaalikul ko ne xam-xam bi am njariñ mooy bi lay woon say ëy bi bopp wëlbati dimbali la ci saafara sax loolu mooy xam-xam piir bi nga xam ne mooy defar doomu aadama ba lépp lu yàlla gërëmut mu rëkkee ku ca lépp lu yàlla gërëm mu ràngoo ko su boobaa nag jëf jëf joo xam ne jëf ju yiw la dafay jàppandal ci moom moo tax xam-xam bu am njariñ moo jiitu mu jural ko jëf ju yiw wëlbati ko nag ànd ak sëriñ boo xam ne mat na sëriñ mu def ci wal ëddëbul mardiwu te mooy teggin yoo xam ne yu suñ boroom gërëm la lii mën nañu bi sëriñ tubaay sanc ci dëkk bii looloo ko taxoon a jóg moo tax boo demee ci Matlabul Fawzayni di nga fekk ay yoon muy ñaan suñu borom ne dëkk bi def ko dëkku xam-xam maskana taallumi nga xam ne képp ku yittewoo xam-xam bu ñëwee ci dëkk bi jëlee ko fi képp ku yittewoo ak yéege digganteem ak boromam nga xam ne dañ lay gindi ci yàlla defar la yéege la ba sa lépp di yàlla kese biir ak biti ku ko yittewoo boo ñëwee ci dëkk bi fekk ko loolu la muy leeral rek mooy fa mu jëm moom sëriñ bi te ma ngi ko tàmbalee ca Mbàkke Kajoor xëy bis yonent alayhi salaatu feeñu ko ne ko ñii la topp ci njàng kese bu ca yam ak ñoom waaye na leen yar nag ci lan ci himma himma mooy fexe ba jël yittey nit ki lépp nga delloo ko ci boromam gis nga yitte jooju bu nekkul ci yow mën ngaa jàng lu baax te du tax nga jëf ko du tax nga wax ko ndax yitt yittee des moo tax moom sëñ Tuubaa daan na wax ne lépp lu yàlla bëggal jaam rek da koy may yitte ja da koy may yitte ja sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwér mi ngi wax bu yàggut ne gannaaw dogalab yàlla lu jaam am yitte ko ko may mën naa jàng bañ tuddee ko borom xam te te du am yitte yi jëfee lam xam jàng nañ ne bakkan dañ war a jàmmaarloog moom man lam yakun li si mujahida fi no la yaxtu fayda sëñ Tuubaa nee na ku dul jàmmaarloog bakkanam du làq njariñ mundu ko koo ci téré bi waye foy jaar nak ba lok bakkan bi ko dan ko waxu nga dan mu dan la waye nga dan ko yow loolu benen jéego bo xamné bokku la nga jàng ko ci téré bi kasse mundu ko koo ci téré bi nag ba mën ko jàngale sax waye kula pécé sa diggante ak sa bakkan xamné sa bakkan mën na la ku alcorane dégg suñu borom né inna nafsa bisu, martu bi suu bakkan dafay digle da fay diglé lu bon jàng ko legi bu la bakkan diglé lu bon da fay mucc ci lolu yitte la laaj pas-pas la laaj motax nga gis ño xamné jang nañ ba xam li ci téré ba mën ko jangalé sax ak téré ba fé séti sëriñ bu melni sëñ tuba ko seen bok ngir lan lañ jangoon ci wara jamar lok bakkan lañ jangoon ci wara jamar lok iblis lañ jangoon ci wara sax ci njub seen depp ak lu seen borom gërëm buñ wété ak buñ wétaliko lolu ñu mën ko jëfé jang ko kese doyul wala señ bi xey tas daara sampaat daara mo dama am Serigne Fall dégg ba ñuy wax na daara ju amul daa mu ne waaw daara ju amul daa waaye lu ma wax borom daa du ko dindi mooy daara juñ dul ubbi ay téere di xool di yër te luñ fi wax ak lépp luñ fi jëf mu dëpp ak alquranul karim loolu defar doomu aadama moo koy may dañ koy defar ba nga xam ne donte jàngul ya, bu def jëfee mu dëpp ak moom yow nag donte jàng arafia ya, leeru arafia ya nga ñàkk moo tax araf yi mën naa fees sa dënn te ku làmb rëy fekk fa muy wéttali araf ya ci dënn bi ku làmb gisal fekk ko muy wéttali araf ci dënn bi te araf ya mënu koo dindi la koy dindi mooy leeru araf yi leeru araf yi yàlla da koy faral di dénkaane kan la koy dénk nitam pire boo xam ne boo jonjoog moom rek mu duy la leeru araf ya su ko defee nag rëy génn kañaan génn soxor génn bokkaale yàlla génn te lu génn rek indi safaanam lu dugg génnee safaana bu fekkee ma nga fa ki nga xam ne dafa woyof saa bu rëy déggee ana woyof woyof dootu fa nekk di que su ko defee nag tarbiya mooy defar doomu aadama ba nga xam ne na muy mel dafay dëppoog ni ko boromam bëggee daara ji la sëñ Tuubaa woote ci Mbàkke Kajoor ginnaaw bu waajuram sëñ Maodo Sall liggéey sëñ Tuubaa nekk ci liggéey boobu leen ba xëy tuxoo Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol dëkk bi nga xam ne fa la gane jamono daj fay coono lool mbàkke boor googu fara maam Serigne doon def fu mu dégg mbàkke mbàkke mu dem buy bale mu baleel la boo yoree ndaa mu rootal la lu daanu mu for tegaat ko palaasam di ko defal ñu bari Sëñ Tuubaa xëy wolu ko ci loolee muy def ne ko lii ngay def loo ci jub lu bëgg lu baax mu ne ko waaw mu ne ko baax na lool waaye du noonu yàlla suñu borom jenn jëmm la danga koy wut ci benn barab ba am ko fa boo fa boo ko bàyyi ko nag am ko fépp amna na lu mu koy junj te booba dafa am xew-xew yu taxoon digeunte mom serigne bi ak mbokki boppam ba xey serigne bi bàyyi fa mbacke bol gim gane jamono motax tek ci sey bir mbokk lu jafe la ben gi ñu nangul lako ko sax lepp na ne ñun ne préfère ce soir xey xey wote mbir say mbor mbokk ñeuk la dar lu jafe la am mbokkam yu ko daron nak maam ci teel tel nako top lool sëñ Massamba teel nako top topp lool waaye du ñepp de que ça looloo sabab sëriñ bi génnaat Mbàkke Bawol daal di sanc dëkk bi nga xam ne moom la njëkk a sanc tuddee ko Daaru Salaam te loolu lu ñu war a mën a jàngee ci sëriñ bi la boobu demagul géej dëkk bi mu njëkk a sanc kërug jàmm gi la ko tuddee moo tax loo gis ci mujjug nit rek daanaka feeñoon na ci am njëlbéenam sëñ tubaab fi mu jaar ak tubaab bi ak tubaab bi ni mu kàccoore ak àq yi mu ko yenul fekk ci ay biir ay mbokkam génne ko diir bu yàgg a yàgg di jéem saa su nekk la nga xam ne mooy jublu sëriñ bi mu fexe ba bëgg koo bittan ji ba dégg nga sëñ Moussa Ka amul ko jaxasoog tubaab juróom-yaari at yu ma te yàqu ñu taw hiidam ku dul sëriñ tubaab bëgg a yàq pas-pasam ci boromam waaye gis nga bi sëñ bi jógee ci géej gi lim njëkk def mooy jéggal leen bañ leen a topp dara ba xëy na bis jox leen téeméeri junni mooy cinq cent mille francs ci jamono jooja ngir bañ seen xaalis daanu ci noonu boo xam ne la nekkoon pas-pasam kéemaan la moo tax dëkk ba mu tuddee daaru salaam loolu lu nekk ci moom la pas-pasam la moom la njëkk a sanc tuddee ko daaru salaam def fa ab diir sanc barab bii nga xam ne mooy Touba mu gënal ko ci mbooleem ay dëkkam mu wëlbati ko dëkk bi digganteem ak boromam moo tax juróom-yaari at na fi sëñ Touba def suñ borom xamal ko ne ko li fekk yaa ci dëkk bi li ngay wut ci sa digganteeg man mii doo ko am ndax ci ay nattu lay jaar ci ay fitna lay jaar ci ay coono lay jaar te li fekk yaa ngi du la laal du la Loro sabab sëñ Tuubaa génn tuba gi dem Mbàkke bari diir yu gàtt gàtt la fa am ca la lettre ya tàmbalee bàyyi ko ndar di ko fekk si Mbàkke Baari ñu koy ruuxaleeg tubaab bi day waajal fetal jiyaar parce que lu tax tubaab bi njort ko te gis na ne sëñ tubaab niñ ko gëmee gëmewuñ ko ñu njëkk ña Omar fu Taal ku ne dégg na ko ci xeex te nitu diine la Ahmadou Cheikhou dégg nañ ko ci xeex te nitu diine la ak ñeneen ak ñeneen ba ci Maba joxo mi nga xam ne moom mujjee nitu diine la sëñ Tuubaa wëlbatiku di nitu diine ñu gëm ko noo xam ne moo raw foofu nañ gëmee woon ñële te nangul ko lool buñ nee tubaab bi kii ci sa kaw la jëm te gis nañ ne ku xasat laaleeg sëriñ bi moom daray tubaab dootu la saf parce que loolu dafa bokk ci yar ak sëriñ bi dafa bokk ci yaram maanaam doo laal daray naar waaye doo laal daray tubaab ki nga doon ngay doon mun ngaa yittewoo seen xam-xam jàng ko ba xam ko niñ ko xamee waaye bàyyee leen nag seen mbatiit nag doo ca am soxla parce que yor nga lu ko gën li la yàlla tànnal moo gën di ba ci saw làkk yooyu yëpp dafay identité boo xam ne bu la sëriñ bi yaree da koy dund sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ci Riwaa'u Nadiim mi ngi nett ne sëñ Tuubaa bi muy nekk ci géej gi dafa am waa jox du da koo digal dig bitéelu misk parfum bu cher bu neex sëñ bi nee na yaakaaram du ko wékk ci kudul boromam dig na ko ko nangul na ko ko waaye defu ci benn yaakaaram waa ji itam dig loola keneen mook sëriñ bi mu leen di leen jox butéel bi mu xëy bis nag indiwu ko kam ko digoon mere ko ci lool bay xuloog moom ci kàllaama goo xam ne kàllaama wolof la sëñ Tuubaa na bi mu déggee baatu wolof yooyu daanaka xolam da cee sedd ba daa mel ni ku ñibbisi ndax fonk culture am fonk mbatitam moo tax sëriñ bi wet diñ mën a jàngee ci moom kenn xamunum tool yu baree baree bare ba ci taalibe yi nga xam ne ñoo ko toppoon ci pas-pas ci yitte ci jaayante niñ ci mën a jàngee ñoom ngir tabax suñu waxuma sax ñëw ñëwagul mu ngir tabax sa àddina dëkk boo xam ne bi nga ko sañceeg léegi daanaka mi amee téeméeri at ak léegi yàggul ñu ne Sénégal tey mooy ñaareelu dëkk bi nga xam ne ci wàllu économie ci wàllu finance ci wàllu développement moo ci jiitu bu weesoo capital bi te capital bi gis nga nam toll xuqus la boo xam ne tabax ko moom yomb na lool loolu dara la du question baatin kese kese kese mais am saayir boo xam ne nitu yàlla daf ci yeew bu wér tàggat ci njoñam ba ci màggal gii tey li ci sëriñ bi digle rek daanaka ci liy développé réew ca la bokk li ko dalee ginaar ba gileem kooku mbooleem xeetu économie yi am am yi prévoir na ko ndax loo tële tële tële mën ngaa barkeeloo ginaar loo am am am nee na bul yéem gileem kon kay boo bëggee waajal bis bi ba lépp li ci war te sëriñ bi joxe ci ndigal nga mën koo matal mais di nga liggéey di nga jaayante di nga fexé sa économie nek lo xam fay développer ba yow ndigal yële serigne bi jox nga mën jaay té lolu da fay contribuer ci lu yëkëti réew mi lolu loolu saa kese la ak contexte bi nga xamné ci lañ magalé ren ku ko bàyyi xel bi nga xamné ne yoonu murit dafa am jaar-jaar dama koy faral di misal ci juma yu mag yi nga xamné yalla baxé nako yoon bi bi ci jitu moy ndiarim gannaaw ga jumaay touba gi ba ca dess moy masalikul jinan nga xol évolution ak murid yi pas-pas bi nga xam ne ci la leen sëriñ bi yar ba ñu bëgg songandoo ko ci yëkkateendoo ci tegaloo du taxaw njaareem c'était pas évident jumaa ju mel ni ñu tabax ko ci jamono jooju ci côté infrastructure ci côté alal ak dërëm ak noot goo xam ne sëriñ bi dañ koo noot ci résidence surveillée taalibe yi am pas-pas ba tabaxal yàlla néeg bu ni mel ci architecture gis nga plan bi kéemaan la bi ci gën a yéemewaat mooy jumaay Tuubaa ji ci contexte bu doy waar lañ ko tabaxee ndax boobu day fekk sëriñ bi yàlla dogal ci moom lim dogal ci moom nga xam ne nisar la woon da koo nisaroon ba bàyyi na fi juróomi million yoo xam ne li ko tax a mooy jumaa ji kese ci jamono jooja liggéey ko tuuti am ci gàllankoor moo tax wax na sëñ Modou Moustapha ne ko sama loxo damm na ci waaye na nga fexe ba sa loxo damm ci maam ci déggin wu rëy rëy mooy sëriñ bi tàmbali na te àggul waaye sëñ Modou Moussa dana tàmbali te du àgg ba yàlla dogal ci loxo yi sëñ Fallou la àggee mais ci context bu doy waar parce que dafa tombeeg sëriñ bi wàcc ab liggéey taawam wutu ko te mat ko sëkk moo tax may faral di wax ne doomu sëriñ du sëriñ lu wér la waaye doomu sëriñ bu dee taalibe ne taalibe topp waajuram na ko war a toppee te su boobaa toppul waajur sëriñam la topp buñ gisatul sëriñ bi. buñ ko toppee sëriñ bi lañ topp ña xamul ne dañ jàpp doom ji rek fekk ne déedéet taalibe ma taalibe la rek yaa gis doom waaye moom xëyoon na jaay njuréel ga bu yàgg xëy na bis ñëw ci sëriñ bi ne ko dama ñëw ngir mbir sëriñ bi ne ko mbir man mu ne dama laa jébbal si sama bopp sëñ tuwaay ne ko Modou Moustapha lii nga def bëggoon naa la koo digal njëkk nga koy def waaye su ma la ko digaloon nga soog def def gi nga ko def te digaluma ko moo gën ci yow waaye Mor Moussa na nga xam ne bi lii nga def boo ko defutoon doo doon dara doomu sëriñ bi la di waaye jaayante gum jaayante nag topp sëriñ bi dama ko war a toppee moo tax gis nga ñi sëñ Tuubaa yar ak ñi sëñ Mor Moussa yar daanaka doo leen xam ne ci doomu bi ñëpp yaakaar nañ ñi sëñ Tuubaa moo yar doomam ñëpp fekk ne déedéet am na ñoo xam bi sëñ bii dem ci juróom-ñaari at lañ toll ñooñu li ñu xam ci sëñ mën naa bañ a bari waaye xoolal moom sëñ Mor sax ni mu baaxee noonu la baaxalee ay rakam parce que lu tax dafa namp ci wéjuram lam war a namp mooy taalibe gi lolu ñi woote wo doomu sëriñ tay war nañu fexé ray sëñ mënu sotta lola sëriñ bi lum bax bax bax momu jur bolé wu la ca la la ca bolé moy gannaaw njure gi nga futtu ko jaay ko jënd ko ak taar sëñ fal lolu la def motax bu sen bay nekkatul ku len top sen bay nga top di mu woné pass pass bu reuy ci jumaa ji parce que jumaa ji biñ ko waré tabax ci Touba dañoo waroon a matériel bi koy tabax ca njaareem té lolu nit mënu ko yenu di dox ñew bo Touba mënu ni de ñu ne ko buñ ko bëggee tabax faaw raay day am raay raay boo xam ne ci la terrain bi jaar te mooy gaal jéeri yenu li nga xam ne mooy jumtukaay yi ñu war a tabaxee jumaa ji gis nga taalibe yi am ci pas-pas boo xam ne Mame Cheikh Ibra Fall feeñal ci mat goo xam ne kéemtaan la lam joxe ciy dongo kenn joxewu ko ci jaayanteeg sëriñam ginnaawam nag ci liggéeyal ko loo xam ne ni sëriñam la woon moo tax xeetu jàngat yi ñu mën a jàngat ci yoon wi ci doxinam kéemtaan la ma danaay faral di wax ci samay kàddu ne Touba bi muy moom boppam boobu Sénégal moomagul boppam Sénégal ban année moom boppam du 60 60 lañ wax ci la am suñu indépendance Touba titre foncier moom ak indépendance Sénégal boobu tubaab bee ñu yilif mu indi raay bi ba ko fa Touba bu ngeen bëggee tabax seen jumaa bi yéen koy jëlee njaarim yóbbu ko Touba gars yi wane ci mat goo xam ne kéemtaan la jëlee raay bi njaarim indi ko ba Touba ngir mottali yéeney sëriñ bi ak loo xam ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ci magi taalibe yi jaayante bu yéemee yéem ba xëy mu sotti moo tax nee nañ sooroo bu mag bi ñu duppee Lam Fall te sëñ Fallu def ko dafa am lu tax pas-pas ak jaayantee tax waaye plan ba sëñ mënu soi yoroon wax nañ ne sooroo bi bokk ca woon waaye sëñ Falloo ko ci boole ne lu mu gën a kawee gën a baax 100 mètres la ca bëggoon ci guddaay ba xëy yàlla dogal lii mu dogal gis nga pas-pas ak yitte lu waaye am moo ko may te yoon wi noonu la baaxoo doxee kilifa daal bu matee kilifa ku topp ci ginnaawam fexeel ba sa yitte mat sa pas-pas mat nga jaaxinde te jëm yàlla képp tax doo rëccu àdduna doo rëccu àllaaxira ndax ñaari leer yëpp lañ yor lu lay bijjil sa àdduna mel nam war a mel bijjil la sa àllaaxira mel nam war a mel te àdduna mi ngi jege ci pas-pas ci defaru ci mbaax sa diggante ak sa borom loo am lu mu tuuti tuuti boo ko doyloo mu bari moo tax lépp da nga koy delloo sëriñ bi ak nam yare moom laa doon leeral sànq ne bi sëriñ bi génnee Mbàkke Baar yi bis bi mu dogoo ci génn moo dëppook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moo tax mu ne xaratu yow ma sabti saa min achar li xidmatil muxtaari fi chehri safar moo tax dafa am jaar-jaar yoo xam ne sëriñ bi sax da koo wax wax na ci bayit ne wa azharal xidmata ama jeysashi wa xal bi admaraha min asasi nee na xidma gi nga xam ne moom la jaayante diggante mu yundi alayhi salaam mi ngi feeñ ci ama jeysashi mooy 1895 mooy bi sëriñ bi génn di fekki tubaab bi ndar nee na xidma gi dëgg-dëgg fii la feeñee waaye sama xol nag maa ngi ko fees ca ama asas mooy bi mu sëñ Maodo Sane wàcceeb liggéey ba yent bi feeñe ko mu tàmbali ak tarbiya boobu la ko xolam fas ci liggéeyal yonent bi fas yéene ko jaayanteel fas yéene yeesal li nga xam ne moom la fi bàyyi ci lislaam waaye ma nga feeñe nag kañ keroog bi muy génn ci bis bi fukki fan ak juróom ci weeru safar moo tax ñu bëri da ngay dégg léeg ñu ne màggal gi li ñuy màggal mooy bi bi génn di dem ci nattu yi ay nattu ku koy màggal di ci sant léeg-léeg ñu bëgg mel ni dañoo bëgg a yéeme yéemaloo gi mel noonu fekk ne déedéet ay nattu kay ay coono koo dégg mu woote màggal loola da màggal kay day nekk lu baax lu neex lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla ah neex naa fàttali ko lool te loolu la sëñ bi woote di li mu woote neex la ak cant la waaye du nattu ya nag waaye nattu ya la mu ko jural loolu ci la xeeb boppam ngir sant ci boromam gërëm ci boromam waaye bis bi mu génn dafa dëppoog bis bi nga xam ne ci lañ ko gërëm moo tax ku juum rek ku ku ku deful ndànk mën nga cee juum fukki fan ak juróom-ñett bi sëñ bi génnee Mbàkke Baari nga xam ne ci la xidma gi feeñ ba wax na ci ay samine laawu ne euh, baatu xaadimu rasul daanaka ci jamono jooju la waat ci moom maqaama boobu fi safina bi annani xadimu zil madina kasa alamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina gis nga kon keroog la Sëriñ Tuubaa doon xaadimu rasul kon xidma gi mi ngi feeñee ci safar googu mu génnee ba dajak tubaab bi lu ak moom ci ndar gis nga tubaab bi lim ko tuumaal mooy il était lié de l'internet au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal pas-pasu tubaab bi mooy li sëriñ bi jàngale jeexital gi muy jeexital ci waa Sénégal mu fexe ba fay loolu raf ko nan la koy fayee mooy jëlee fi sëriñ bi rek génne ko ndax moo ko sabab waaye sëriñ bi stratégie la woon xarañ gi foo ko natt weesu na ko moo tax bu dee mbaax googu sa bopp képp nga ko yemal li ko sëñ bi waxee nee na sëriñ su ma tee sëriñ la te moom ba tax nga topp ko lay def ci yow ba nga yëg ko lii bu ko sëñ Tuubaa defutoon buñ ko fi jëlee yóbbu gabon yoonu murit fay booba téléphone portable amul email amul whatsapp amul li amoon mooy lettre lettre balaa nga koo mën a bind mën naa def weer weer laa la wax te du yegg ci borom te ci tubaab bi lay jaar ak telegram moo ko yoroon mu koy génnee sëriñ bi juróomi at yoo xam ne xamuñ ci sëñ tubaab dara kenn mënu la cee wax ne sëñ bi lii xanaa baatin nga xam ne toll nañ ci jamono joo xam ne am nañu yaakaaroon ne moom sëñ moom nekkatut ku jàng ilhamu salaam di nga dégg sëñ ne am na ñoo xam ne ci jamono jooju buñ gisee tubaab dañuy yaakaar ne kii malaakab yàlla ndax ragal tubaab booba dafa bëri sëriñ sum ray moom tubaab bi faagaagal leen tas seeni daara ñii mu jàpp génnee dëkk bi fa lañ jaaree sànq leen ñu ne sëñ bi fa la jëm daan nañ ko wax bi ko maam Serigne Fall di topp topp gu yéeme gi daan ko daan nañ ko wax ne ko kii moytu ko dalay jay rek te bu tubaab bi ñëwee di nga xam dalay jay kon mbokk yi ñu ci bari ñu ngi doon xaar ne tubaab bi dana ñëw parce que tubaab bi daa gaaw ci kuy mbooloo topp di loolu lay bañ dafa bëgg yilif ñi ñi woy indigène yi te mooy ñi nga xam ne ñooy waa réew mi di doxal politique am ñu nangul ko bismillah